baat yii de ku ko wax yàlla daf lay bindal junniy tiyaaba wala sax mu efasel la junniy bàkkaar laata ñu ciy ñëw ñu nuyu leen ci nuyoowu gën a sell muy asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk internetu Lansar TV جلين انجي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم تفتوك صحابي مولايت لين نلين مني ndax am na ci yéen ku mën a fàggul boppam junni tiyaaba ci bés ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa xasanatin ndax am na ku tële ci yéen faggul boppam junniy tiyaaba ci bés bu ne saxaaba yi daldi koy tontu ne ko yontu bi sallallahu alayhi naka la nit mën a faggulee boppam junniy tiyaaba ci bés bu ne fa sa'alahu saa'ilun min jula min julasaa'ihi kayfa yaksibu alfa xasanatin loolu moom naka la ko nit mënee naka la nit mën a fàggulee boppam junniy tiyaaba ci bés bu ne xoola xoola sallallahu alayhi mooy nga sàbbal yàlla téeméeri sàbbal mu ne ku sàbbal yàlla téeméeri sàbbal de yàlla daf lay bindal junniy yiw wala sax mu effacer la junniy bakar sàbbal yàlla nak moy ngay wax subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala subhan rabbi al ala ak yu deme non yu deme non nee ku sàbbal yàlla ku tok konte sàbbal yàlla sa bal and ak teewlu nee na daf lay defal daf lay bindal junni yu waye efansel la junni bakar kon mi ngi nonu di tuddu yalla lu ama am solo la ndax yunus bi sallallahu alaihi Wasallam sallam na eh, nit kuy tuddu yalla ak nit ko xam du tuddu yalla nee na dafa melni euh luy dund ak lu dé mu ngi melni garab guy dund wala garab gu dé ndax garab guy dund da ngay gis xob yi day naat garab gi vert rafet waaye garab goo xam ne dundul da ngay gis mu wow koŋ du am benn xob du am sax ker kon nag di tudd yàlla lu ama am solo la tey loolu la leen indiloon muy xadis bi ñu jëlee ko ci saad ibnu abi waqas wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu